asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalaq bu baax tabaarakallah te nag waa Badru TV doxantu fii nga xamante ni moo di si suñu benn kilifa di suñu sëriñ di suñu xarit di suñu soppe muy sëriñ Alxaaji Cissé ñu ngi ko xamee si ki nga xamante ni moo di borom baati njool ñam xam ah sëñ ñu ngi leen nuyu bu baax ah, ñu ngi lay ziar di la baalu àq di jéggul baax si dérangement xam naa ne dañu la bett yàlla def ñu ñëw nag bëgg a waxtaan ak yow si li nga xamante ni moo di si li nga yëngatu muy li ñu tuddee baatiñool ñoom xam waaye balaa dara rek incha allah nga nuyuwante mbokk yi nga présenté wu incha allah. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. la hawla wala quwwata illa billahi alil azim. Eh, sëñ Saalum ñu ngi lay fay di la wax waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. di sant yàlla bu baax. si jàkkaarloo yow ndax xam naa ne loolu lu ñuy amal njëriñ la ndax Badru TV fa tabaarakallaahu ku ne xam na liggéeyam ci euh, wàllu média bi macha allah seen liggéey rafet na seen taxawaay rafet na macha allah moo tax ñu sawar lool pour liggéey ak Badru TV si kàttanu Yàlla incha allah ñu ngi lay fay bu baax di nuyu waa Badru TV. barakallah jërëjëf sëñ Alxaaji Alxaaji mu mel ni euh, Alxaaji dafa am beneen yoon bu ñu ko xamee woon muy jaay mobile ak yeneen nekk si marché Sénégal parcelle. tabaarakallaa tey ñi gis la ngi yëngatu si wàllu fajum wolof ñi tabaarakallaa ñiy laaj ak alaaji euh, lan moo lu dugal si lu mel nii. waaw maa ngi nuyu àdduna bi yëpp di nuyu sama benn maire ndax benn bis daf na ma dama dellu senegal mu ne ma waaye yow bi nga fi nekkee ba léegi ndax lii yaa ngi ko xamoon ma ne ko waa maa ngi ko xamoon waaye lu nekk rek dafa am euh, time ma maanaam lu nekk dafa am heure boo xam ne ni si nga ko sañ a wane surtout boo bokkee ci famille boo xam ne nii dafa nu muy nu muy tëddee euh, ku xam baati njool gi nga xam ne fa lañ dëkk am na yenn yoo xam ne nii bu dee fa nga dëkk di askanoo di ko adresse sa bopp yéen yi doo ko ñemee def moo tax lépp loo gis ñu def ko rek ni ma ko faral di waxee fekk na ñu gëstu ko lu mat wala ñu xam ko fukki at ci gannaaw wala juróomi at ci gannaaw doog koo fesal na lii ñu ngi koy def si kàttanu yàlla incha allah wàllu faj bi nag moom euh, damay wax ne lu ma doon la sax mën naa ko wax parce que sama maam bi nga xam ne moo jur sama yaay fajkat la woon sama maam bi jur sama baay bu jigéen fajkat la woon ñoom seen faj euh, lu ma nekk nekk xale fàttaliku naa si lu bare bare bari kër ga nii la daan feesee ci ay xale ay mag ñu ñëw di di di def di faju moo tax comme man su ma fajee du bett ñu bari ci kàttanu yàlla incha allah. jërëjëf sëñ Alaaji léegi mu mel ni yow tey bu ñu la laajoon yan façon feebar ngay gën a faj. waaw dafa mel ni euh, comme nga ne nga ne nga tiim ni ki rek na ko yónnante bi yan jukk la yoroon day limba ba sonn rek bàyyi mais mënu laa waxal yëpp xanaa mu jàpp bi ko yàlla waxoon rek tag tagg mooy jukk bu rafet. Euh, loolu la ñuy ja euh, foofu la ñuy espérer rek jël si quelque si ci ci ci ci li ñuy def mën koo expliquer nit ñu xam ko ndax bi yàlla di tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam jukko ju rafet la ko tagg am na leneen leneen yu bari yoo xam ne ñun xam nañ ko yoo xam ne mënoon na ko si tagg waaye booy booy booy adressé nit foog nga adressé ko si wan wala si tout waaye si lépp du du du du du mën a nekk daal si kàttanu yàlla waaw li ñu faj bari na xanaa dañuy commencé ci li nga xam ne nii moom lañ gën a miin ci faju wolof muy ndoxu siti Eh, olof yi naan ko kuli waaw mu nekk feebar boo xam ne ne fa tabaarakallaahu sonal na ni ñi trop lu tax mu sonal nit ñi mooy eh, dafa nekk feebar bu xaw a neex a faj xaw a naqaree faj boo déggee loolu nag neexut dégg boo gisee ma xaw tuddee xaw a neex a faj gi faj gi ma koy faje moo yomb ci man moo tax ma tuddee ko noonu boo déggee ma tudd mujjee xaw a naqaree faj gi xam gi si nit ñi di sonn pour faj ko moo tax ma wax loolu. waaye feebar la boo xam ne nii damay wax ne képp koo xam ne yor nga ko naro a wér ma xam di nga ñëw baati njool ñam xam mais nag bu fekkee naro wér moom ala kulli haal doo fi ñëw ndax ñun euh, Hadj Sall moo wax la dara taruma sax ñaanal sama bopp lu may ñaan yàlla mooy képp koo xam ne jog nga pour ñëw si baati njool ñam xam su fekkente ne boo ñëwee sa aajo du faju yàlla bul ñëw yal na la yàlla yana la fi nga xam ne ni moo gën ci yow su fekkee ne boo ñëwee sa aajo na faju lu mu métti ak lu mu jafe-jafe na yàlla jàppandal ko ba nga ñëw ndoxu siti mooy kuli euh, dama ne su fekkonte ne fajkat yi làmb la arène man ñi mën naa fëgg sama dënn maa siy rawaale sa arène te ku ñime wala ku ko xam ne ni li ma lay wax weddi nga ko ñëwal ñu jëflante si wàllu baati njool ñam xam si wàllu kuli nga xool ndax man donc kott kondong maa ko defaral diw boo xam ne maa ko créé sama sama xalaat ak xam-xam yi ma gëstu defar ko muy diw bi muy solution dafa am ñu ma koy laaj naan ma yónnee ma photo bi dama la koy yónnee parce que xam naa ne foo ko amee ci àdduna bi ci baat njool ñam xam la jógee ndax ku kenn mënu ko pirate ndax lañ ko defaree man ak sama rak sama doom jigéen kese ñoo ko xam <laughs> kon kon loolu. waaye saa dafa mel ni daal yéen façon yi daal da ngeen laqatu de ko defar daal. waaw parce que lii problème mooy euh, am na ñuy mbubboo sax baat njool ñam xam di jaay garab si féeri bi am na ñuy mbubboo baat njool ñam xam di dem si luuma yi di jaay garab waaye lépp day weeru dafa am sama benn paa dafa ma woo ma ne ma Alaaji Cissé yow li ñu lay dégg yëpp si rajo bi nga ñëw ba ñoomi eh, aksi wala si si eh, waxul woo la ma ne ma ngi fi ma ne ko ñoomi <laughs> mu ne ma ne ko man ñëw ma fa de mu ne ma am na benn waay bu fi ñëw de mu ne mooy baati njool ñam xam ma ne ko ah mu ne waaw mu ne waaye garab mi de taxawul ma ne ko ah ma ne waaw ma ne ko waaw loolu dañ koy sant yàlla rek waaye nag bi ngeen ko utiliser da ngeen xam ne du garab baati njool ñam xam waaw garab la boo xam ne nii bii ngay gis mooy sachet bii su fekkee da nga yor ndoxu siti mu nekk sa biir deret ndoxu siti bu nekkee sa biir deret heure bu nekk sa yaram day tàng waaw su nekkee sa yaxi heure bu nekk sa yaxi day miit ala kulli mënoo ci dara bu nekkee sa kaw der bi nag heure bu nekk da ngay gis nga am ay picc ay heure ay xam sa der du normal loolu nag su fekkente ne yow da nga am benn bi bàyyi benn bi boo fajee nit ki mun na wér mais mun na mun na mun na continuer dafa joxe parce que du set si yaramam moo tax ñu defaree ko garab bi nga xam ne ni moom lañ moom mooy cosaanu baati njool ñam xam bii ngay utiliser naan ko dose bi ñu la wax nga jël ko ba mu jeex si kàttanu yàlla dina la génneel ndoxu siti bi nga xam ne mu sa yaram bi dina ko génne ba mu set loolu moo ko tax a jot mais dina la génneel bépp fatiguement boo xam ne mos na nekk sa yaram ko génne ba nga xam ne yow mi am na lu génne si yow si biir loolu saan mooy li ñuy wax ay omat da koy génne ba su fekkee xale la bu demee wanag boo ko nandalee bu demee wanag teg ko ci pot bi nga xool lu muy génne su fekkee mag la yow boo toogee si wanag bi loo yàkkamti yàkkamti xoolal ni mu def saani te loolu tax koo jóg mais bonus bi la waaw teg ci tamit su fekkente ne yow dooy am appétit jigéen comme euh, sa xel du nekk si jigéen wala booy sëy da ngay tayal lu koy waral mooy ndoxu siti bii nag loolu da koy éliminer ba mu seet parce que góor dama bu lekkee lam lekk rees xelam dal rek bu sëyee jigéen jigéen dana war a xam ne kii ki sëy ak man am góor la waaye bu fekkee du lekk day mos su du lekkee tey suba mën na bàyyi ba ngoon doog a lekkaat loolu lu koy waral mooy ndoxu siti te boobu bii da koy dindi bi soo koy naan. période bi nga koy naan ak su jàllee da lekk ko ba nit ñi ñi nga jaax ñi nga dëkkal sax dina la laaj yow xanaa lan nga nekk di naan waaw loolu yàlla def na ko si garab bi yeneen yi nag moom képp koo ko xam ne bëgg nga ko xam ah boo contacté baat njool ñam xam bu soobee yàlla dina si gën defal leer parce que lu du si euh, nag bi du xaj si cindi te émission lañ nekk incha allah alaaji boobu mooy ndoxum si tamit am na solo trop yàlla na yàlla barkeel ko kon mbokk yi mu ngi noonu ah ku si bëgg rek tabaaraka la comme nañ ko waxee ndoxum siti moom sonal na ni ñi léegi alaaji comme yaa ngi doon junj ne bii mooy solution incha allah rabbi nga gën a leeral rek euh, wàllu solution bi. waaw solution bi diw la boo xam ne nii ñun ñoo ko defer waaw daanaka liñ siy jéggaane rek mooy xottu pot bi parce que pot na wax dëgg yàlla ñu ko defar waaw affiche bii ngay gis man maa koy affiché maa koy dog ak taf ko ci pot yi diw bi maa koy togg sol ko ci biir donc donc man xam naa diw bi lan la kii dama ne borom kër bu nekk war na ci am benn pot teg ko ci këram ndax ñëpp ko soxla dama ci profité yow Saalum ma jox la sa pot biñ paree nga continué nga yóbbaale ko ndax bii bëri na luy dal nit si wàllu yaramam muy jàbbante di dem hôpital fu nekk bu war moon tudd sa hôpital parce que waaye émission moo ko laaj di dem fu nekk mu jaaxal la sa wàllu der fekk boo jëlee pot bi da koy faj ma dalee ko si wàllu der skin treatment la maanaam der lépp loo xam ne dafa ñëw sa der bi te bokku ci woon soo ko si déwee da koy dindi li ñëw si nag te bokk si ñun xam nañ ko lu ci gën a fes mooy heure xam picc kanam ama dañuy wax ne boo nekkee célibataire am na picc yoo xam ne boo ko amee tànk takkoo jabar doo du dañ solution bi dina loolu. gisati nga léew si dëkk bi célibataire bu kanam nga am ay picc <laughs> doo ko gis ndax ñoom xam nañ solution bi da koy dindi ala kulli ndax ñun lu ñu la koy jaay ñun ñun rek ñoo la fiy jaay diw wala ñu jaay la garab garante la ko garante la ko mooy li ñu lay wax da nga koy gis ala kulli haal da nga koy gis su fekkee gisuloo ko rek yow yaa deful li ñu la wax waaw solution bi nag bu fekkee da nga amee comme li ma wax si wàllu der foofu leer na mais boo amee bëñ bi métti bu am pax bu am pax laa wax de parce que si pax bi nga koy dugal da koy éliminer ba mu wow koŋ góom xam nga bëñ bi métti bu am pax góom lay def si biir diw bi soo ko si dugal da koy génne ba mu set wecc bañ boobu moom si kàttanu yàlla sa giiru dund dootul métti jigéen ñi nga xam ne dañuy am infection maanaam sa fi ngay seeyee di xesen bari na bul ut benn garab ñëwal baati njool ña xam ñu jox la solution bi ak garab bii nii nga naan si kàttanu yàlla dañ la koy garan si giiru dund yow da nga koy dégg nit ñi da ko nettee su fekkente ne da nga am soxna wala nga am jëkkër yow jigéen bi nga amee ko foog góor bi ak jigéen bi faju parce que boo fajee jigéen bi bàyyi góor bi góor bi dana ko wàllaat jigéen bi moo tax li ñu bëgg soo ñëwee dañ lay laaj na la ndax am nga jëkkër nga ne waaw sa jëkkër ñaata jabar la nga am nga ne ñett wala ñaar ñu ne la wool sa jëkkër mu ñëw ak jabaram ngeen jël garab soo ko nangu sax duñ la jox garab parce que bëgguñ ñu jox la garab ngir xaalis ëllëg nga dem di ko gisaat su fekkee ne amoo jëkkër dañ lay jox yow kese su fekkee sa jëkkër yow moom kese la am yéen ñaar la ñuy jox garab parce que dañuy lépp loo xam ne ni da nga koy def te amoo ci résultat nga nekk jullit sa xel di xalaat ngay jël xaalis yi ñu di ko def sa poos boo tëddee nelaw rek yow boo ne gëm nga yàlla dafa des te ñun dañ koy sooraale bu baax a baax a waaw jërëjëf. jërëjëf kon nag mbokki solution mu ngi noonu daw leen gaaw ngeen ñëw si baati njool jëm xam tabaarakallah ndax ngeen am solution ndax kenn ku nekk solution lay wut si si dundam. Euh, Alxaaji ba tey mu mel ni dafa am lu ñu fi gis si wàllu hémorroïde yaakaar naa lay dox xam naa nga gis ñu si dafa leer rek incha allah. hémorroïde moom. Euh, euh, ndeysaan suñu mbokki awsa yi seen rajo yi rajo yi moom dañ koy wax ba nga ba ñëpp lay xale sa mokkal nañ ak ñeneen ñu koy def programme waaye di def programme di tiital nit pour mu daw ñëw si yow man duma def loolu di def programme di tiital nit pour mu daw ñëw si yow man du def loolu parce que ala kulli haal damay xalaat ne man jullit la te am na loo xam ne dafa nekk sama diggante sama borom ma war ko sàmm eh, émorite eh, lii naan ko paayel eh, Saloum Cissé feebar boobu sonal na nit te lu koy faj dafa dafa yomb sax pour nga faj ko waaye ñi koy woote ne dañ ko mën a faj ta te mënuñu ko faj moo bari loolu rek mooy problème moo tax hémorroïde diggandi law parce que docteur yi ñoom xam nañ ñoom mënuñu si dara ñoom li ñu lay jox moom pour calmer la wala mu génn ñu opérer la ko am na sama benn maam dafa Amérique la nekkoon mu amee paal ñu ñu opéré ko ñu ne ko ñu never seen doo doo ko gisaat yàlla natt ko bu mu waaye bi ma ko joxee garab daf na ma yow man américain. waaw hémorroïde bu nekkee ci góor sa biir day wow mën nga toog ñetti fan wala ñeenti fan doo dem woon ak dama ne góor gu toogee suba ba ngoon di demul duus na dem faji boppam parce que machine bi nga xam ne moom mooy euh, transformer lekk si ngay amee li ngay demee woon si ngay amee li ngay am pour kattan pour sëy muy wàllu man yu si ngay amee ndox mi ne sa yaram pour ngay mën di dox comme oto nu mu amee essence léegi su fekkee lekk bi du rees yooyu yëpp day manqué te hémorroïde bu nekkee sa biir bi tànk génnul sa lekk du rees waaw sa lekk du rees de te lekk bu reesul mu ngi mel ni ngay ngay nal ngay ngay nal gerte gu amul gu ar ar naan xam nga doom diw noonu la mel léegi nag pour nga tàggoog loolu jaru sax ñu ko man hémorroïde du si nekk di waxaat sax di ko expliquer parce que ñëpp xam nañ nu mel. waaye képp koo xam ne yëg nga sa biir problème sa biir biir bi rek moo xam day métti wala muy wow wala ngay dem war a muy génne deret wala am picc bu génne suuf jaaxal la xamuloo lan la contactal Baati jool ñam xam si kàttanu yàlla. incha allah boo ñëwee yow da affaire da jaaxal sax. barakallah jërëjëf sëñ Alaaji kon macha allah kon gars yi daw leen ngeen ñëw ah ba tey ñu gisaa si beneen sese boo xamante ni dafa wuuteeg bi ñu gisoon. waaw bi bi mooy taw bi bi mooy rakam maanaam ñoom ñaar benn nañ xam nga lu def ko nii du ñëpp ñu am doole pour jënd lu bari waaw ñun suñ traitement mun nañ la ko xaajal soo demee ba gis liñ la wax nga ñëw continuer soo ko gisul waat ñu delloo la nga ñu joxoon ñu ñaanalante ñu ebala si keneen nga dem boo jisee mbuus bi ñu def ko nii pour ki nga xam ne ñëw na soxla lu néew pour essayer bii lañ koy jox mais ki dem ba xas ba xam garab yi bu ñëwee du laal bi bii lay laal <laughs> parce que bii garab la boo xam ne dama ne wàllu kattan nit dañuy jaawale néew kàttan ak gaaw gaaw a sa bopp pourtant nit mun na am kàttan waaye day gaaw a yëg boppam parce que dafa am jigéen ñoo xam ne bu fekkee da ngay ñoom dañu ñoom dañu agressif maam ñoom duñ la xaar bala nga agsi seen kaw ñoom def na la loo xam ne bu fekkente ne sa maayin bi taxawul doo doo doo doo yëg da sa bopp dafa am si jigéen ñi am si jigéen ñoo xam ne nii ñoom dañ lay bàyyi sa bopp yow mi nga xam ne yow yaay góor bi su ko defee yow nga xool ni nga mënee pour mën a yàgg ci sëy bi nga def ko. bu la yàlla nattoon na jigéen boo xam dafa agressif wala ngay jëflante jigéen yu bëri kii mooy sa garab parce que moom di moo nga koy jël système bi day des sa biir yaram bi sa logique bi day gën a taxaw bu la jigéen di fondo sa yore day dafay jàpp waaw di moo nga koy jël comme tey su fekkee daf la fekk 50 percent si kàttan boo jëlee garab bi daf laa yóbbu 75 percent nga dellu jëlaat mu yóbbu la 80 percent nga dellu jëlaat mu yóbbu la 85 percent ba hundred percent da nga dem ba garab bi yow suñ la ko joxe sax da nga naan bii moom saa yi ñëwatu ko jël waaw parce que day chronique sa yaram dafa wuteeg garab yi nga xam ne da koy naan tey mel ni gaynde après dose bi jeex nga mel ni muus loolu loolu. ndax tey comme tey boo ko jëfandikoo pare nga yaakaar ne kay boo si ndax du la indi jafe-jafe sa kanam laa koy commencé nee nañ euh, fajkat boo gis malaat la woon waaw bépp garab bu ma la wax fii nii man utiliser naa ko. moo tax lu ma la wax du si dañ du dëñ parce que man li ma lu ma jël sama biir bi di si dugal lu bon wala ma jël di ko jaay nit ñi garab gi dama ko daan utiliser. nit ñi nag dañuy yàkkamti te yàkkamti yàqule lay doon maanaam nit ku nekk ak niveau am ak fi nga toll eh, fukki dërëm mën naa faj Saalum Cissé ñaar fukki di ma faj téeméer di faj keneen bu ko defee nag nit du dem ba gis njëriñam di ko bàyyi di xool leneen. loolu na yàkkamti moo koy waral parce que yow ñëw nga ba gis garab boo xam ne leer na yaa ngi koy jël indi lu la benn effet te li nga bëgg yaa ngi koy am yaa ngi avancé nga dem ba si digg nga bàyyi ko dem xooli beneen garab yaa lor sa bopp waaw. jërëjëf macha xam naa ne euh, duñ ko àggale li moom asif rek lay doon képp koo xamante ne daal soxla nga si lii muy wax nii tabaarakallah contacté rek incha allah baati njool ñam xam seen affiche bi incha allah rabbi mooy numéro boob di dox si biir te yëpp dina tasaaroo yaakaar naa kon bii ak bii benn la bi garab yi dañ a nuroo a a bett dëgg la waaye incha allah beneen programme danañ ko def ci place ba su ko defee garab yëpp nekk fa waaye lim li si gàttal bii kii lay faj estomac mooy li anglais doo gastrique euh, Saloum Cissé man rek maa fi faj gastrique waaw soo amee xaalis dinaa la faj soo amul xaalis dinaa la faj xam nga lu tax mm-hmm. li koy faj jafewul gastrique mooy ban feebar si wàllu olof estomac mooy mooy xol buy tàng maanaam yow ñi ma lekk kafe ñi ma naan kafe ñi ma naan ataaya ñi ma lekk kaane parce que soo ko lekkee sa xol bi day wala sa wet yi nii wala sa gannaaw gi day jam di métti kooku euh, xam nga xam-xam dañ koy gëstu rek mais xam-xam bii fi ma ko jëlee borom xam-xam bi nee na ma su fekkoonte ne nit ñi mën naa publicité ne damay faj cancer bu la neexee nga ne damay faj cancer bu nit cancer boo ko joxee day wér te man sama bopp essayé naa ko. te mosul dégg mosuma ko wax sama publicité parce que li Ibnu Aziz da wax nit ñi wama abbas su bootu xaqalal almuhaal maanaam xel nangu na sa boobu waaye nit ñi seen dañ leen réeral ba seen xel nangootu ko moo tax boo toog di wax lu xel nanguwul rek bu yàgg nit ñi joxoñ la dañuy yem si li nga xam ne xel nangu na ñu wax ko boo jëflante ñun nag di nga xam li ñu mën ak luñ ñu mënul mu ngi noonu kon mbokk yi tabaarakallah daw leen daw si leen daal ngeen ñëw baati ñool ñam xam ku si ñëw daal daw rëcc mu mel ni kon alxaaji solution bi yaakaar na bii tamit solution bi la bokk. waaw solution bi boo ñu eh, yëpp benn la maanaam bii xottu bii nii eh, eh, five image la maanaam cinq xam pouce la ñu koy wax cinq image la bii ak bi ñoo tolloo bii li muy jël si diw sax mu ëpp bii li muy jël. mais comme adduna bi des fois da ngay ne di jënd benn affaire parce que mu manqué foo nga miinal nit ñi ñaari mbir buñ gisul benn bi gis beneen bi moo tax ñu def pot bi def pot bi mais pot bi sax moo gën a ndaw si gis mais moo gën a sakkan waaw beneen bi ci wàllu euh, comme asma am nañ si garab boo xam ne su fekkente ne asma daf lay sonal ngay fat boobu ñëwal nga jël garab bi mooy mooy lu ndaw loolu ngay séen rek kii. bëgg a parce que dama fi gis benn euh, boo xamante ni daanaka su ma juumul yaakaar na juróom-ñaari doom daal ñoo si ne. juróom-benn doom tabaarakallah moom li nii nii. traitement boobu moom su fekkee danga nga amee néew kattan maanaam néew kattan xam nga maa si wàllu gaaw a daanu su fekkee da nga amee néew kattan maanaam yow ah, sa kattan mu ngi wàññeeku bu baax danga nga amee asma danga nga amee diabète mooy jabet danga nga amee bopp bi mit rek te sedd wala ay wóom sof sof tànk yi mit wala biir bu heure bu nekk mu ngi mel noo xam ne ne neexu la kii soo ko amee moom moom laay wax jaay nit dem tëdd nelaw maanaam feebar bu la nit jàmbare soo ko joxee bu la neexee nga dem te dina su wérul rek moom sax dina xam ne moom si moom la waaw. ngeen traitement bi ñaata traitement bi wan moom su moom da ngay jël ñaar bu bis bi deesuwaatee nga jël ñaar bu bis bi deesuwaatee nga jël benn bu bis bi deesuwaatee nga jël benn gis nga comme nga jël sa oto yóbbu ko si garage toliyee ko gaal bi noonu lay def bépp feebar bu ne si sew da koy dindi. bari na ñoo ko jaay sax dañ dañ la koy yóbbu ne mu dem ba yegg ñu xeeb ko na la est ce que juumoo <laughs> waaye waaye ñam xam dëgg boo ko bëgg a dégg mooy bi waaw moom mbir la moo xam ne ko ñam rek waaw. kon nag mbokk yi mu ngi noonu ñam xam la tudd am na yoo xamante ni tabaarakalaa kenn mën na koy àggal si benn eh, eh, mission waaye li si waaye da bëgg leeral rek kontaagal baati loolu ñam xam seen numéro yaa ngi noonu si suuf incha allahu rabbi lépp dina gën a leer fii si Badru TV dina Badru TV mooy leeru diine ji te wax dëgg yàlla lii nii ah, alxuraan la. parce que daanaka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëg ngeen gis ngeen ko fi mu jaar si wàllu faj ak yeneen yu si aju yëpp kon nag alaa ñu ngi la ñaan yàlla na yàlla barkeel tey si misaal tey lan ngay conseil ñi nga xamante ni ñi ngi feebar di dawale ji di dem si yeneen barab yoo xam ne laa dañ fay eh, kii seen xaalis te duñu am benn njëriñ. waaw boo am na sama benn xarit daf may wax na ndeysaan yow da ngay wax di wax rek di wax di wax rek te yow li nga yor baax na ma ko waaw wax waxaat du bëri wax waaye leeral la ak am yërmande gi am yërmande si nit ñi ak cofeel gi ma am ci nit ñi parce que fii boo bàyyi xel gars yi fi ñuy dem di fajo ñu si ëpp boo demee doo leen gis boo leen làkkee olof duñ la tontu dégguñu sa olof boo leen làkkee soose wala pël si làkk réew bi dégguñu ko ñoom daal biñ boo ñëwee xaalis bi ñu lay laaj lañ lay laaj garab yi ñu lay jox lañ lay jox ki la koy jox ak ki ngay jox ki lay jox garab yi sax du nekk benn ko defee nga bàyyi xel ala boo nee Alaaji Cissé baati njool ñam xam boo ñëwee sama place nga ma fekk ca ma bàyyi sa ba ma toog wala nga fekk ma sa biir booy ma toog dinaa ataaya saa yoo ma woowee ma jël la soo ma envoyé voice ma dellu ko tontu la soo ne ma lii ak lii moo ma jaaxal ma tontu damay am time pour nit ñi ba duma am time sax pour sama njaboot loolu ko waral mooy wan nit ñi ne nit ki nga xam ne dangay ngay jëflante moom te mu présent mu présence sa kanam maanaam heure boo ko soxlaa gis ko jëflante koog jafe naa moo gën a wóor waaye nag nit nekk ci appartement bu luxe di dawal oto bu seer xam nga nekk ci kër goo xam ne ku ñëw ne uy wala nga sol xaftaan sol dara joo xam ne ku ñëw sax loo ko wax rek da koy def man gëwuma yooyu man damay bëgg nga gis ma ba pare xeeb ma ma jëflante yow nga xam man may kan man loolu laay bëgg. barakallah te loolu am solo sax parce que atawa doomam mbir moo am parce que tamit comme li wax loolu la parce que léeg-léeg gis ñoo xamante ne ah si diw laa ko jëndoo woon daf fi ñëwoon ma dem fa. tabaarakallaa loolu su boobaa tey boo si amee yeneen jafe-jafe tey doo si mun dara kon nag tabaarakallaa ja xanaa nga jox nit ñi rek euh, rendez-vous sa place ba bu beneen yoon incha allah te di ñaan yàlla yàlla moo te limbe bi di ak baax na incha allah Haji Saloum ñu ngi lay sant baax di la gërëm di ba Badru TV sa kaw sa kanam incha allah dina yegg fu télé yëpp yegg ndax xol bu seet moo ko laal euh, di wax gaa yi rek na leen euh, émission bi fii ñu ko defee nii dañ fi ñëw rek pour am ñu fi doon lajal am ñu leen jox nga wooñu fa tabaarakallaa ñëw def fi benn émission bu ko defee beneen bi ñu ngi xaar gaay yi ndax gaay yi dañ may xas nag naan ma yow daal affaire da ko dese jox farata may leen nag nekkum benn liggéey laa am damay jaay mobile damay réparer mobile damay jaay assoir ak euh, électronique lépp laay def bu ko defee nag su ma jëlee fula yëpp jox ko garab gi bu yàggalee day sooxe te lële moo lal lépp bu ko defee nag comme ni may wax nit ñi rek Alaaji Cissé du du du dara lim lay jox mu am njëriñ waaw maanaam Euh, dafa am ñu may woon naa ma damay laajte papa Alaaji Cissé ñi ay maire ñi naan damay laajte oncle fekk bu ñu mayee gis ma dañ naan du yow parce que ñoom dañ jàpp ne fajkat mag rek moo ko du foofu damay wax ne góor bu xasee ba am 40 ans moo ko am 80 ans ñooyam wala sax nga ëpp ko xel yow li ngay mën a def du ko def sa Aji Saalum maa ngi dem de waaye fàtt naa wàllu ndigli de. <laughs> bisimilah ñëw si ndigli. boobu ñi ma ko ñàkk a wax barki alxuraan laa wax. ndig liy métti ni ma koy fajee si Gambia fii ak lu ko wër kenn du ko fajee te ku ma ko fajal wérul jarul sax ngay dem feneen du wér waaw ndig liy métti tànk buy métti yow ñëwoon na ma fii mooy métti rek euh, six to eight minutes yow yaay wax ne sedd na nga doog a jóg dem waaw yow yaay wax ne sedd na te du méttiwaat boobu kun euh, maanaam dama ci wóolu sama bopp boo ñëwee dama sama ndigali mooy miiti rek wala sama oom bi mooy miiti wala sama tànk yi mooy miiti damay kontaan parce que damay leer na yow moom soo naratoon wér doo fi ñëw mais boobu naka la wutee ak comme ñoo xam ne dañu am zone zone xam nga yi waaw xam nga foofu dafa am équipe noonu maanaam Gàmbi nag footballeur yi am ma fi xam am na ñuy football si benn équipe xam nañ ma dañuy ñëw foofu di indi seen gaa yu am sonu mais boo laajee Abdou mi nekk dakaar su ma fa demee par équipe lañ may indil waaw zone ne mënte ne na alaaj ñetti at a ngi ne sama zone bi daa ngi ne dawatuma defuma dara. sëñ bi bu ma bu ma la laalee zone da nga naan kii la nekkoon. waaw maanaam la la tax muy toxalu la tax muy métti loolu laay dindi. waaw loolu laay dindi dindi bi nag am nañu ko ñime am nañu ko ñimewul waaye du amul conséquence. waaw boo ca paree moom soo demee boo sama waa laal laa la indil la nga ci ngay ngay déggaat ci kàttan yàlla ñu ngi jaajëfal ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne wax ji bu dëngee ah doomu aadama buy wax la rek su jubee tamit ñu bokk sant yàlla rek xam ne li ne si xol si yéene jëm si doomu aadama yi ci wàllu faj mënuñu ko wax si benn émission waaye eh, la mu la mu saf na ko na ko xam dama dugal sama garab yi si eh, TikTok bi ma ne képp koo xam ne mos naa jëflante yow mu rafet wala ma jëflante yow lama la waxoon nga am ko laayegal benn fan rek lu ma am si abonné ak lu ma am si like kenn mënu la ko wax te loolu fekkonte ne li ngay def leerul doo ko ñemee incha allah jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di gërëm baax suñu mag ju baax ji nga xamante ne mooy suñu alxaaji tabaarakallaa ñu seet woon ko fii nga xamante ne moo di benn si ay palaasam ñu ngi lay ñaanal yàlla yal na yàlla barkeel kon mbokk yi mbir maa ngi noonu képp koo xamante ni rek tabaarakallaa am nga yenn si tawat yi mu nga xamante ne moom la fi alaaji wax incha allah rek mën ngay jokkoo ak moom baatinul ñam xam kon sëñ bi jërëjëf baarakallaa fii ko yal na yàlla barkeel lépp seen émission baa ngi nii nag euh, ngi koy amee fii si Badru t mais émission facc incha allah rabbi mboolem ñoo xamante ne ñu ngi yëngatu si wàllu bu mel ni te ñu soxla ñu rek incha allah mu ngeen di contact Badru TV so seen nomba yaa ngi noonu si suuf moo ñu contacté dinañ ñëw ba sa place fekk la fa def ak yow bu mel nii kon mbokk yi jërëjëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu as barakallahu fiik jërëjëf